ñëw di firi téere bu wax an naxu al waadix mu nañ darsu bu njëkk bi ak bu bi tey nag ñu ñëw bu ñetteel bi te mooy alfi'lu maadi mu ne alfi'lu mu ne seddale fi'li bi an xibaari zamani ci kam jamono mooy seddale fi'li ci kam jamono fi'li lañ fi'lu maadi ak fi'lu mudaari ak fi'lu am day nag ñëw di firi fi'lu maadi al fi'lu maadi jëf ju passé al amsilatu li mooy misaal mu ne jëf ju fi'lu maadi nag mooy loo xam ne dañ koo def ba pare mooy dafa passé dañ koo def ba pare nga door ko wax lu mooy al fi'lu maadi comme kataba kataba mooy bind na mooy ne loolu boo ko waxee mooy ne dafa bind ba pare nga ñëw door ko wax mooy loo xam ne dañ koo def ba pare nga di ko wax jox nañ la misaal comme kadaba boo ne kadaba mooy ne dafa am ko bind ci bind ba pare nga door a ñëw di ko wax loolu maa di nag moom bu dee su wolof na lay mujjee comme nga ne jaraa daw na nun ci moom mujj gi dafay fata fenomaa di foo ko fekk mujj gi dafay fatha mu ne waqafa taxaw na loolu boobaa mujj gi dafa fatha daa sànku na loolu mujj gi dafa fatha kon fi'il maadi moom noonu lay mel mujj dafay fatha te bu fekkee ci wolof la boobaa na lay mujjee mu ne mu ne jara daw na al kalbu xaj bi nii nag laa doon wax taxaw na arrajulu góor ki a sànku na alkitaabu téere bi daqati sonn na asaatu montre bi mu ne daqati gi nag la moo tax mu def si taagi mu ne taagu bi la moo tax mu def ko si ndaxte montre jigéen la moo tax mu def si daqati mais lu war a def mooy daqa sonn na waaye lu nekk jigéen moo tax mu jigéenal ko ne daqati sonn na asaatu montre ne jaati dikk na al bintu xale bu jigéen bi boobu tamit li mu nekk jigéen tamit waa jigéen la moo tax mu def jaati waaye nag bu fekkee góor la danaan jaa dikk na daqati tamit bu fekkee góor la danaan jaa daqa sori na mu ne baadati nan na adda jaajatu ganaar gi la moo tax mu def ti mu def ti ci la ndaxte jigéen la ba tey ganaar adda jaajatu mooy ganaar bu jigéen waaye ak mooy ganaar bu góor mooy seex mu ne bu fekkee ne nekkul jigéen konoon dana baada baada nen na baada nen na ad dajaajatu ganaar ad konoon danaan baada nen na ad diiku seex bi su fekkoon ne góor la loolu wax waaye lu nekk jigéen moo tax mu ne baadati nen na ganaar bu jigéen mu ne fi'lu maadi nag boo koy i'raab danga naan jaraat fi'lu maadi mabni ala fatha jaraat fi'lu maadi mabni ala fatha المقدرة الظاهرة على آخره المقدرة على آخره جرى فعل ماضي مبني على فتح المقدرة على آخره من جرى فعل ماضي لأن بناء بصفتها نتر وشي مجرى mu ne jara jëf ju passé la ñu binal ci fata buñ nattale ci mujj mu ne waqafa moom boo ko era du bokk ak la moo tax jara nga erabe ko nga def sa al muqaddara ndax moom mujj gi yaa moo ci nekk gisuñ def def nañ ci fata gi mais dañ cee dafa ànd def nañ ci fata mais fata gi feeñu dañ ko nattale mu ne waqafa taxaw na arrajulu góor ki waqafa fi'lu maadi mabni ala fata az-zahiratu ala axiri mu ne waqafa ak jara moom duñ bokk noo koy arabe waqafa fi'lu maadi mu ne waqafa fi'lu maadi mabni ala fata az-zahiratu ala axiri mu ne baa sànku na alkitaabu téere bi baa fi'lu maadi mabni ala fata alzahiratu ala axiri mu ne daqati sanana assaatu muntum daqati fi'lu maadi mabni ala fata alzahiratu ala axiri attaawu tanis la moo tax nga wax attaawu tanis ndax lim nekk jigéen mu ne jaati dikk naal bintu xale bu jigéen bi jaati fi'lu maadi mabni ala fata attaawu tanis moom tamit مبني على فتح الظاهرة على آخره التاء التأنيس mu ne baadat yi nen na ganaar gu jigéen gi baadat فعل ماضي مبني على فتح الظاهرة على آخره التاء التأنيس mu ne wax nañ loolu ba pare ñu ñëw ci sarf bi ñu jël xaraja mu ne xaraja sooy wax anaa danga naan man soo bëggee wax man génn danga naan ana xarajtu ñun mbooloom génn nahnu xarajnaa ku góor ki nga jàkkaarloo nga bëgg a wax ne ko yow génn nga naan ko anta xarajta ku jigéen ki nga jàkkaarloo anti xarajti ñaani góor ñi nga jàkkaarloo antuma xarajtuma ñaani jigéen ñi nga jàkkaarloo antuma ba tey mbooloo mu góor mi nga jàkkaarloo antum xarajtum mbooloo mu jigéen mi nga jàkkaarloo antum na xarajtum na waaye nag kenn ku góor ku fi nekkul kenn ku góor ku fi nekkul huwa xaraja kenn ku jigéen bu fi ku fi nekkul hiya xarajat fekkee ne nag ñaañu góor ñu fi nekkul huma xaraja ñaañu jigéen ñu fi nekkul huma xarajata ñaan mbooloo mu mu fi nekkul hum xaraju mbooloo mu jigéen mu fi nekkul na kon xaraja moo nekk noonu ñu jëlaat beneen kon ni waa nañ xale ja mu nekkoon ñu jëlaat beneen jox la ko nga salfu mooy jalasa jalasa tamit koy salfu comme ni nga salfuwee xaraja rek comme noonu nga koy ne ñu ñëw si bi mooy gëstu bi te amal settantalal alkalimaatul ula baatu njëkk bi fii am saytu saabiqat si misaal yi jiitu mu ne settantalal baatu njëkk yi si misaal jiitu te jiitaa da fekk afaalan ay fi'l li anna kulla minha bépp bu ne yadullu day tegtale ala xusuy amalin ci am ak jëf fi zamani ci jamono bu jegoo mu ne boo setantalee baati njëkk yi ci misaal bu jiitu danga ko fekk danga ko fekk ay fi'lu yoo ne benn bu nekk dafay tegtale ab ci jamono bu jagoo mu ne wa iza boo setantalee hada zamani jamono fi kulli minaa ci bépp bu ne wajattahu danga ko fekk zamanan muy jamono maadiyan bu passé jamono ci jamono bii da nga ko fekk mu nekk jamono boo xam ne dafa passé mooy maadi la dafa passé mu ne fa kalimatu jara baatu jara fii misaali awali ci bu njëkk bi tadullu day tegtal ala jarin ci daw fii zamani lazi ci jamono bi nga xam ne mada passé na xam la takkal lu njëkk wax mu ne baatu jara ci misaal bu njëkk bi dafay tegtal ab daw ci jamono bi nga xam ne dafa passé njëkk ñuy wax dafa mooy jamono boo xam ne dafa passé ba pare ñu door kaa wax fi misaali saani ci misaalu ñaareel tadullu day tegtal ala wuqufin ci taxaw fi zamani lazi ci jamono bi nga xam ne mada passé na qabla takallumi njëkk wax aydan ba tey lu tax mu def ci aydan ba tey comme dangaa waxoon fee qabla takallumi njëkk wax comme ni ndax comme ni nga waxee woon fee nun ti ngay nun rek ngay waxee waat fii loolu moo tax mu def ci aydan ba tey mu ne naka loolu tamit baatu waxafa ci misaalu ñaareel bi dafay tegtal ab taxaw ci jamono bi nga xam ne dafa paase njëkk ñuy wax ba tey mu ne waxaluma jara nemit mu ne waxaluma jara naka noonu wali zalika loolu moo tax tusammaa ñuy tuddee kullu kalimatin bépp baat min haaji kalimaat si la xeet fialan min haaji min haaji kalimaat si la baat fialan maadiyan fialu bu mu ne min haaji kalimaat si la baat fialan maadiyan fialu bu passé mu ne naka loolu tamit loolu moo tax ñu tuddee bépp baat yi baat yi fi'lu maadi te mooy jara waqafa daa taqati jaar baada mu ne wa kazalika naka noonu jamiu kalimaat mboolem baat yi allati yaa xam ne min haza naw yi min haza nekk na ci yi la tamit baat yi yëpp nekk na ci benn xeet te mooy maadi mu ne ñu jël qaacida bi qaacida nag ci ci arab mooy wax qaacida waaye olof tënk lay wax tënk nag buñ ko waxee mooy loo xam ne danga kaa jàngoon ci dars bi yëpp ñu tënkal la ko ci benn digg bu ndaw moo lay wan ne lii yëpp tënk ba nekk nii mu ne al qaaidatu lii mooy tënk bi al fi'lu maadi fi'lu maadi huwa moom kullu fi'lin bépp fi'l la boo xam ne yadullu day tegtal ala xusuli amalin ci amul jëf fii zamani maadi ci jamono passé mu ne fi'l maadi moom bépp fi'l la boo xam ne dafay tegtal ab jëf ci jamono bu passé mooy lu ñu def ba pare nga doon kaa wax comme jara mu ne moom nag danga mokkal danga koy mokkal comme ni nga mokkalee fatiha rek danga war a mokkalee comme noonu mu ne al fi'l maadi huwa kullu fi'lin yadullu ala xusuli amalin fi zamani maadi mu ne kon lii lañ indi woon ci darsu bi mooy fi'lu maadi kon darsu bi nag fii leen lii lañ leen indi woon ci darsu bi lu ci jub ci yàlla lu ci dëng suñu la suñu ne xam-xam suñu ne gës in uridu illa islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu wa rahmatullahi